waaw man maa ngi tudd madame Diop Aïssatou Babou euh, dëkk dans le département de Ranérou Ferlo commune de Ranérou nekk euh, formatrice ci wàllu meew formatrice Buudi Kosam nekk en même temps transformatrice euh, Buudi Kosam. brochette yi mi ngi tudd brochette Buudi Kosam meew mi meew nag bi ñu ratt léegi léegi moom la ñuy booleeg limon togg ko. mën cee def ay brochette mën cee def ay gato gâteau yaa ngi ni lii xam nga lii mën nga ko may sa doom mën nga ko ndékkee lii meew nag la ak citron kese ak kese kese kese amul leneen moom lañ def brochette yii itam brochette yii moom brochette moom brochette la rek xam nga rek brochette moom brochette la mën nga ànd mën mën na ànd ak parce que salade saa ngi ni waaw mën na ànd ak soos parce que mu ngi ni brochette yaa ngi ni kon lii nii lii meew nag la moom laa defar meew nag boo xamante ni nag bi euh, suñu nag yi la nagu euh, local la après ñu ñu inséminé ko ma am ci métis métis waa projet bi euh, PDF ñoom ñooñu ñoom ñoo indi woon programme bi à ma insimine ci sama nag ma am ko nag bi mu ngi génnee dix huit dix sept litres de lait par jour moom la ñuy defaree lii. lii pour nga am un kilo bi il te faut dix il te faut huit litres de lait juróom-ñetti litres meew pour nga am un kilo waaw moom la ñuy defaree nii buddi kosam waaw. Euh, depuis 2015 waaw 2015 laa demoon 2014 laa demoon France. def fa stage ñëwaat depuis boobu ba léegi nag maa ngi formé euh, mais nag euh, ñoo ngi sant euh, directeur di PDEF moom moo ñu may opportunité bi pour ñu ñëw présenter suñu produit bi présenter loo xamante ni maa ngi nii jóge à Podor ci Gamaaji Saare di former foofu ay jigéen ci wàllu meew mi parce que meew mi dafa bëri ba nga xamante ne bu nawetee dañ koy tuur wala def ko soow di dindi ci diw ñor bi rek sànni lii moo tax mu jóg ma dem jàngal leen won leen technique bi grâce ak Sahel développement ak trois fpt 3 xam nga ku ko dégg dégg ni nguuru Sénégal c'est le gouvernement moo ñu may opportunité bi ñu dem foofu daal di former jigéen ñi mais baax na trop baax na trop non non non xam nga guñ ko waaw parce que état bi daf ñu war a dimbali daf ñu daf ñoo war a dimbali dimbali éleveurs yi dimbale transformateur yi pour ñu mu law parce que lii dafa baax boo amul ndawal amoo amoo euh, ndawal amoo jën amoo dara am nga meew mun nga ko togg mën nga def ko sa maafe mën nga def sa ceeb mën nga def sa cere guddi nga reere ko parce que lépp def nañ ko ci àll bi mais dafa baax dafa riche meew kese la ak limon amul produit chimique amul dara